الجمعة واصلا بها صدورهم تعلموا شرهم به لا تنكروا لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen jaar baax di leen baal xàq te leen baal xàq ñaan tax yi sa bi xam mu taxaan ak yàlla yàlla lu baax ak wér lépp lu mu yéen liggéey borom Tuubaa suñu borom dafa ko tey jii nag dama am ay kàddu yu gàtt rek yu bëggoon a leeral kàddu yoo xamante ne bii dañoo bëgg mu leer ci bopp doomu aadama yi suñu borom dogal tey jii ñoom télé yi dinañ dugg yóbbu fu ne moom ci loxob sëriñ bi rek lañ koy bàyyi sëriñ bi tàmmal ko boppam téel ko boppam xasida yi nag mooy lépp barki dem dafa wax bu am solo nit ñi bàyyiwuñ ko xel ci borom Touba waaw moo loolu borom Touba moom boo boo dalee ci kaw ma mu dal ci sa kaw loolu lu am solo la loolu noonu ko ñëpp bàyyi xel moom mi tout tànk la nañ ko ñaan bu baax fukki at ak juróom benn am fukki at ak juróom mooy doo ko mat nañ ko ñaanal yàlla fiqaw fanam da leen koy yéene ci ay këram ak ay soxnaam ak bu ko déggee dañu ne kàddu googu rek lañ bëggoon a leeral mu denc bopp doomu aadama yi ndax ku nekk nga ngi woo téléphone ku nekk nga nuyu ba taxaw suñu xaalim jur nii li muy daj ci message kenn xamul nu toll bàyyi nii kasaale dina ko noonu man nii li may ci message ak ay ay ay ay ojo ay audio kenn xamul nu toll ku nekk di ma laaj kii kii koom la nangam nangam nangam li ma leen ci mën a leeru ñëpp man koo bàyyi xel bu baax baax ndaw la mi ngi ci daara waajur yi ma koy jàngal alxuraanul karim te am njàngam nëbbeeku ci liggéey sëriñ Tuubaa bi nag da ko fas yéene taxal fas yéene ko wéyal fépp fu ñu joomu te yëkkati xëdd moom mi joom fa yëkkati xëdd fépp fu ñu joomu te digloo moom yëg joomu fa yëkkati te borom Tuubaa nag nee fu joomu te fu joomu te eh, yëkkati sama xëdd yi man joom mën naa tëral ba ñëpp fi la gis kon nag ñoo ngi ñaan ci barke borom Tuubaa yàlla na sëriñ bi defal ñëpp jàmm loolu daal lañ doon leeral ci bopp doomu aadama yi mu leer waaw maanaam soxnañ nan nan ko ko ñaanal yàlla na dund ba am yàlla na dund yi ba am njaboot yàlla na dund yi ba